déclaration de patrimoine pourquoi l'OFNAC n'est pas publié la fortune de Ousmane Sonko bala ñu yàkkal xibar bobé ñu sant leen gërëm leen bu baax ci and bi ngeen and ak ñun way leen di abonné te ngeen di cloche bi bu leen fàtte di like vidéo yi ab benn question ngi ni souvent di ñëw ci li nga xamante ni moo di débat public yi si garam place yi comme quoi que ne ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko président Pastef les Patriotes nekk premier ministre bu Sénégal li nga xamante ni mooy déclaration patrimoine bi pourquoi ñi nga xamante ñoo di waa OFNAC ba léegi publié wuñ ko si li nga xamante ni moo di si public bi OFNAC moomee nag mën nañ ne ginnaaw ki nga xamante ni moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme ni mu ko defee woon déclaration patrimoine publié ko ñëpp xam bëri na Sénégal yoo xamante ni jamono ji nag question boobu uh, mii nag publié li nga xamante ni moo di déclaration patrimoine bu Ousmane Sonko à public Ousmane Sonko mii nag si fàttali moo nekk premier ministre bu Sénégal te li nga xamante ni moo di Sénégal nag dañoo wax ne Ousmane Sonko mii kan moo wax ne képp ko xamante ni si gouvernement bi nga nekk say mbir nañ ko lëñbët ba mu leer nañ ni nga am ak li nga amul te moom nag mi nga xamante ni moo jiite li nga xamante ni moo di gouvernement bi di bu Sénégal nekk premier ministre te ba léegi nag mën nañ ne gisuñu benn yoon li nga xamante ni moo di OFNAC nag daal di publier li nga xamante ni mooy déclaration patrimoine boobee Sénégal yi xam li mu am ak li mu amul. ginnaaw bi ko njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye defee moom ba noppi.